الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون إن آثار وباء فيروس كورونا الجديد تعدت الجانب الصحي في كثير من أنحاء العالم فقد كشفت الأزمة في كثير من البلدان عن تهاون ولا مسؤولية من جانب الشعوب ومن جانب أولي الأمر السياسي وفي السنغال لم ينج من هذين الأمرين سوى أولي الأمر الصحي وأولي الأمر الديني أيها الإخوة المؤمنون إن العاملين في المجال الصحي يبذلون جهدهم ليل نهار في حدود إمكاناتهم الضئيلة ويضحون بأوقاتهم ويعرضون أنفسهم للخطر في منأ من الأنظار ويرفعون توصياتهم إلى أولي الأمر السياسي لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة وأولو الأمر الديني أيضا تحملوا مسؤولياتهم منذ البداية بتوعية الناس قولا وفعلا وباتخاذ تدابير وقائية في دور العبادة وبالمساهمة ماديا ومعنويا في توفير وسائل الوقاية والرعاية وأقرب مثال إلينا هو الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله وأيده وأطال بقاءه وإذا كان أولو الأمر الصحي والديني يقومون بواجبهم خير قيام في ظل في ظل الأزمة الراهنة فإن تصرفات أولي الأمر السياسي وكثير من المواطنين تحتاج إلى yang ada di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xewal ak mujj moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba ay e jeex yi itam yamul rek ci wàllu wér waaye da ko weesu ci fu bari ci addina si ba feeñal ci réew yu bari ak saggane ak ñàkk yëg waru gar na mu ware ci biir nit ñi ak ci biir ñi jiite réew yi sénégal it muccut ci loolu Sénégal yi ci mucc xëy na mooy ñu jiite wàllum wér muy waa kër ak ñu jiite diine ji mbokk yi ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur lu ñu man ñi ngi koy def guddi ak bëccëg li ñu man nag mooy li leen jumtukaay yi am lim leen may moom lañ man te jumtukaay yi néew lool waaye lañ man lépp ñu ngi koy def seen waxtu yépp ñu ngi koy def ca loola ñu ngi dugal seen bopp sax ci lu leen mën a lor ngir aar nit ñi ak taxawu nit ñi te loolu lépp du lu kenn di yëg seen liggéey lañ nekk rek di ko def doonut lu ñuy siiwal doonut lu kenn di yëg saa bu ñu waree sàkku ci ñu jiite réew mi itam taxawaay boo xam ne moytu gi laaj na ko saa bu ñu waree sàkku lu mu noonu danañ ko sàkku ne leen lii kat buñ ko digle woon dana dimbale nit ñi ci ci moytu bi kon ñoom da ngay taxaw ci seen wàll nañ ca war a taxawee ñi jiite diine ji itam ba mbir ma amee rek ñoom it taxaw nañ ci taxawaay bi leen ci war taxaw nañ ci ci seeni wax taxaw ci ci seeni jëf itam ci béréb yi ñuy jullee itam muy jumaa ak jàkka it taxawaay bañ ca war a taxaw ba moytu gi mën a am itam taxaw nañ ca def nañ seen alal itam yëkkati seen kàddu itam xirtal nit ñi ci lépp luy tax moytu gi mën a yomb moytu gi mën a yomb taxawu ñum dal itam mën a yomb misaal mi nu gën a jege bu dee ci kilifa diine yi mooy ku mel ne sëriñ Muntaxa mii nga xam ne moo jiite murit yi yàlla na ko yàlla sàmm te dëgëral ko te yàggalaat ko fi lool lool kon waa kër docteur ak ñu jiite diine ji ñoom taxaw na ci seen warugar waaye nag ñu jiite réew mi moom ak ñu bari ci waa réew mi ñoom seen taxawaay jar naa seetaat ñi jiite réew mi ca njëlbeen gi rek lañ tàmbalee def ay njuumte ni ñu ni ñuy saytoo mbir mi dañ cee def njuumte yooyu ca njëlbeen gi rek la tàmbali bokk na ci ba ñuy diisoo ak bu ñuy diisoo di seet nu ñuy doxale dafa am ñu ci waroon a boole te boolewuñu leen ci te waxtu wuñu leen te waroon a boole dañ ko yemale rek ci benn kuréel daanaka wala yenn kuréel bokk na ci njuumte yooyu itam jamono ju ñu waree jël taxawaay boo xam ne day doon taxawaay bu dëgër jamono jooju duñ jël taxawaay bu mel noonu ci misaal rek lu jiitu weer a ngi nii ci jiite wàllum wàllu wér ci gouvernement bi waxaloon na boppam ne war nañoo sàkk pexe ci ndakaaru war nañoo wut ay doxalin ak tëralin yoo xam ne ndakaaroo ko tax a jóg ndax ni fi yëf lawee ëpp na kon war nañ cee taxaw taxawaayu boppam ëpp na weer boobaak léegi te kenn déggut benn taxawaay buñ ci def bu wuuteeg li am ci biir réew mi rek lii ñuy tudde ay ndimbal itam muy ndimbal boo xam ne ci dund ab dund la moom it ku ne xam na li ci am ci lënt ni mu baree ay lënt ak ni mu baree ay coow moom it ku ne xam na ne kon nañ ca doxee du doxee ni woo xam ne mooy wa gën bu dee nit yi nak ñu ci bari ñi ngi sikki sakka ci ci ci jangoro bi ñu ci bari ñi ngi sikki lo ñeneen itam te seen sikki sakka ak li ñuy sikki lo ñeneen ñi teguñ ko ci ak xam du xam-xam buñ am bu wër bo xamne ci lañu sukkandiku ba ci sikki sakka mo am ciy sikki lo ñeneen amna ci ñoo xamne it sax dañuy tuumal wa kër docteur buñ ñu ñu wedd bu ñu waxee ñu wedd am na ci ñoo xam ne dañuy sàggane li nga xam ne moom la moytu laaj moytu gi nga xam ne moom la ñu war a moytu jàngoro ji li mu laaj am na ci ñu bari dañ koy sàggane mooy yi ñu war a li ñu war a def ba moytu ñu ci war dañ koy sàggane ba duñ ko defee nañ ko nañ ko sàkkoo li ñu war a xam nag mooy mbas mii lu fi jaar di jàll rek la dafa jaar di jall rek munta ñaka jall dana jeex munta ñaka jeex kon lu fi jaar di jall rek mo xam day yag mo xam du yag waaye day jeex bu fekke jeex na nak suñu digënté ak wa kër docteur ñom ñi nga xam ne lu jitu mbass mi am ci ñom lañ daan dem bu nu jaaxlee ci suñu wér bu mbass mi jalle itam pour jaxle suñu wër ci ñom la dem bu fekke mbass mi tak taxna ba kóolute gi waron dox suñu diggante ñu yaq ko kon bu jexé ñu ñuy def nuñ leen nu jakarlo ak ñom ndax danañ mën a delloote ci ñom bu fekke am nañ lu jaxal ci suñu wër ki nga xam ne yow ak mom la won nga wolu ko te ëllëg yow ak mom lay doon mëno ci dara kon ab diggante bu gatt rek wota yaq seen diggante ba lu mu wax nga wet di ko di ko di ko tuumaal loolu kon lu jara bàyyi xel la kon ñeenti kuréel yii am na ci ñaari kuréel yooyu jàpp nañ ne taxaw nañ nañu war a taxawee mooy waa kër docteur ak kilifay diine yi waaye am na ci ñaari kuréel yooyu nag seen taxawaay des na muy ñu jiite réew mi ak nag waa réew mi ci seen bopp noo ngi ñaan yàlla nag mu defal ñu àddina ak wa alaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu bunti yiw yëpp soob nu cig njub mottali suñu mébét yëpp may nu fanu gudd ak wér ak muñ gu rafet الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون إن أولي الأمر السياسي أخطأوا من أول الأمر في إدارة الأزمة ولم يشاوروا في الوقت المناسب كل من ينبغي مشاورتهم ولم يتخذوا مواقف حاسمة حين اقتضى الأمر ذلك فمنذ أكثر من شهر مثلاً أعلن وزير الصحة ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة في إقليم دكار ولم يحدث شيء من ذلك حتى الآن أما ما يسمونه بالمعونات الغذائية فيحيط به غموض كبير أما المواطنون فكثير منهم يتشككون ويشككون غيرهم بدون علم في وجود البلاء في وجود الوباء ويتهمون العاملين في مجال الصحة وآخرون يتهاونون بالتدابير الوقائية وعلينا أن نعلم أن هذا الوباء أمر مؤقت سينتهي لا محالة بعد فترة طويلة أو قصيرة فكيف نواجه العاملين في مجال الصحة الذين كنا نلجأ إليهم قبل الوباء وسنستمر في اللجوء إليهم بعده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 واخلق بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله طول لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا